La Famouza c'est le nom de ses enfants euh, Fatima Mohamed ak Zahra euh, turu le yi la jël euh, dajale ko tuddé ko boutique bi. Famouza na en fait juste avant tabaski. en fait metti trop trop trop trop trop parce que les temps ba bi commencé ba en fait nit ñi ba dernier moment ñëwandoo benn vague nii bëgg a def commande une tissu yi ñaw ba pare ku ak couvre bi dafa metti au lieu que parce que tailleur xam nga bu doy événement la day toog ba 23h minuit 1h soogay wàcc mais léegi on est obligé bu 18h jotee ñu wàcc. te xam nga bu 18h jotee nga wàcc da ngay perte temps bu bëri. Mhm. moo tax en ce moment métti na trop si tailleur yi comme genre comme ni nga ñëwé fekk ni nga fekk fi ay deux personnes trois personnes alors que avant day fess del do am fo tek tank ñëpp nekk ku nekk di jënd lonk fi wekki fi mhm. mais ins bi mënul nekk parce que nit ñi xam nga déjà génn bi de c'est limité. donc ba paré dëkk bi il paraît que dafa xaw a dëgër nit ñi dañ naan dafa xaw a dëgër <laughs> donc dañuy def nank nank ñëw am na ñuy ñëw nag mais dañoo ñëw ci dernier moment bi donc ce qui fait li ñu leen mën a proposer mooy prêt-à-porter bi kese kese. 안녕. aussi y a nañ ay modèles yu yu rafet parce que modèle yi ngay gis fi yépp yu la yu tak lañ défar pour bi si euh, site page yi ngay a publier def sa pub whatsapp genre yu mel lancer parce que léegi xam nga mode bi yu passé à la télé et tout donc obligé si whatsapp bi genre facebook bi ngay mën lancer pardon <coughs> def ce produit pour gën nit ñi mu gën ko mëna gis goor ñi pour l'instant goor ñoo ëpp parce que bañu commencé pour jigen yagul donc goor yi ñoo ëpp ñuy ñëw pour pour def euh, pour ñawlu si ak pour jënd si jigen ñi am na mais touti touti ñun nak côté bobu duñ si am problème parce que ñun dañoo miser ci qualité ñun dañoo miser trop trop trop si qualité xam nga mënon nañu def tissu yu yamama yi moy tissu fila yi genre super sang yu bon yeeg yoy ñun suñu tissu dafa dafa am dafa nekk qualité parce que ñun chute yi am jógee Italie ak genre yooyu yi ñëw veste yi ñun moom la ñuy am donc ce qui fait buñ la jaayee tissu mun nga ko fóot ba sonn machine à laver lu la neex à sec à chaud bu la neex tissu du def dara ñun moom dañoo miser ci qualité boobu loolu moom client yi nañu nopp nañu noppali kukaay duñu am problème ci côté boobu